yéenay brigands yi yéenay bandi yi yéenay théoriser li nga xamante ni mooy kaw reconstruction tey aujourd'hui ñu bëgg ñu gëm loo ni loolu yëpp dañ koy considérer par perte et profit oui nañu fàtte mais nañ ñu setal moo gën li nga xamante ni ñu jéem a fàtte nañ ñu setal parce que dañ ñu jiiñoon ni li xewoon ci dëkk bi yëpp ñun ñoo ko indi man bala nga may baal danga may setal ba pare moo ma gënal nga may baal ci loo xamante ni defuma ko euh, madame la ministre